ci yéenekaay yi. ci yéenekaay yi. El Hadji Elhadji leen jàmm ci xibaar yi kay gi duñu xamal ne coup d'état Mali démb kay ki nga yi nga xamal ne moom kay jamono ji soldat forcé nañu ko daal nangu nguur ga ca moom askan wa tamit daan kontaan lool tëral ndax doon ngir mu daal bàyyi nguur ga dem yéene kaay gi duñu xamal ne jamono ji nag la nga xam ne rek moo xew moom moo di Mali loolee kay baaxul ci wàllum démocratie yéene kaay gi duñu xamal ne moom IBK kay forcé nañ ko mu daal di wax ca télévision nationale ba di xam ne ne jamono ji moom bàyyi na nguur ga Les Échos yéene kaay dinu xamal ne IBK dem na forcé nañu ko mu dem waaye nag lu bëri mënoon na ko ci fekk ci ay jafe-jafe ndax soldaar ya ngir mu daal bàyyi nguur Mali googe ngir daal dem abal leen yéenekaay bi di xamal ne njiitu réew mi Macky Sall moom ak juróomi njiitu réew danañu dem ngir fay taay gi nga xam ne rek moo xew ca Mali maanaam daal tànki jàmm yoo xam ne rek dinañu ko dox foofee nga xam ne moom moo di Mali ba léegi ci yéenekaay gi di xamal nag jamono ji waa CEDEAO mere nañu lool ñi nga xam ne ñoo di waa Mali ak ñi nga xam ne rek noonu lañ doxalee yéenekaay gi di ñu xamal ne dëkk yi nga xam ne rek

Ibrahima Samb tëj nañ ko lu toll ci fukki at ak juróom